asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala xayri xalqillahi ajmain sayidi alawalina wal axirin sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa saxaabatihi wa xadimi ajmain alhamdulillah ñu ngi sant yàlla bu baax a baax di sant Sëriñ Tuubaa di nuyu mbooleem ñi nga xam ni ñoo jàkkaarloog ñun fuñ mën a nekk ci àdduna ci jataay bu am solo bi waaye di jégalu bu baax kàddu yi ñuy jël ndax bu dul woon ak kilifa yi toog te wan ñu ni xaw mun leen ko ñàkk jël kon buñ ko jël ndax ñun liggéeyalu suñu bopp Sëriñ Tuubaa la ñuy liggéeyal te waa këram ñi ngi nii toog te ku ne xam na ni al al muridu man laa yamliku shay'an wala yamliku shay'un bu ñoom bu ñu xasee toog ñun amatuñu lu ñuy wax liggéey ba mu sotti ñu jox leen xool ba xam nu ñu koy apprécier ñun loolu rek lañ am waaye nag bu ñu joxee ndigal danañ barkeeloo ndigal loolu wax ak ñi buy si ñëpp ñu jiital ci cant gi ak ngërëm li ak ñaan li Cheikh Mouhamadou leen Mountakha yàlla na ko yàlla dolli fan wu gudd ànd ak wér di nuyu ki nga xam ni moom la jiital ci jox ko kàddoom mu di ko waxal mu Cheikh Mouhamadul Bachir waaye nag mboolem ñi nga xam ni ñooy ay kilifaam nekk ci jataay bi ñoom itam ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax muy sëñ Abdou Samad moom sëñ Chaib muy sëriñ Mouhamadul Xabbaan bi nga xam ni liggéey bii def moom la sëriñ bi jiital ci dëkk bi te mu ci liggéey bi waaye di nuyu bu baax sëriñ Habibu Mbàkke moom Cheikh Mouhamadul Fadal waaye di nuyu bu baax sëriñ Jiili moom sëriñ Saaliwu nga xam ni mooy suñu wasiila moom la ñu bàyyee suñu bopp ginnaaw bi ñu gisatul sëriñ Saalix te mu taxaw lool ci lépp waaye di nuyu mbooleem kilifay diine yi jógee ci yeneen turuq yi ñëw ànd ak ñoom liggéeyu lislaam bi nga xam ni jëfee lislaam ak dundu lislaam moo tax ñu ñëw fi ndax bañ ko tàmbalee lañ dem fenn fu ne dem wax leen ko muy mën nañoo def ci bopp ba Cheikh Abdul Malik Niass bu Cheikh Ibrahima Niass waaye du nuyu mbooleem ñu jógee Canaba du nuyu mbooleem ñoo jóge Njaasaan du nuy mbooleem ñu jóge Laayeen waaye du nuyu mbooleem ñu jóge euh, maanaam ci waa kër Ceerno Muntaxa Daha Taal waaye du nuyu mbooleem mu assasaat islaamiya muy nga xam ni waa euh, fal falaax ñi ngi fi ak kuréel yu baree bari yoo xam ne mu ne su ko li may def rek mooy maa ngi sant yàlla di sant Serigne Touba. di wax ne liggéey bi kat bu ngeen gisee mu mën a egsi fii barkeb Seexul Xadim mi nga xam ni mooy ñaanoon ni dundam gépp na doon sàmm alxuraan ak te sàmm alxuraan mooy ña ca nekk di ko jàng di ko di ko liggéey mu di leen toppatoo te di leen dimbali mu waxoon ne wajaal bi jaahil muntaqa xayaati riayat alquraani sil ayaati ñaan koogi mu ñaanoon boroomam loolu dëggu ci loxoom ñu fekkoon ñu daan ko def di ay bokki taalibe loolee dong ci la ñëw sos si ndax ku ne xam na ni concours ci Sénégal di ci joxe prix yu rëy yàgg na fi te bu ñu seetloo waa këram kenn jiituwu leen ci muy ca Cheikh Ahmad Salim jàng muy ca Lamp Fall muy ca Serigne lay Dia waaye muy ca Alaaji Serigne Seck ñoo ci joxe ay millions loole nag lañ ñëwaat nag moom mi ñaanoon lépp te moom lépp wax ni alquran mooy ndonoom mooy léppam moom lañ gis nag ki moom yëf yi nañ ko ko delloo ma waral ñun bañ ko yëkkatee jëmaluñ ko fenn ci kudul moom waaye moom it mu téel ko boppam ak njabootam ñëw taxawu ñu ànd ak ñun ca loole ca loola kan moo ci jiitu mooy sëñ Mouhamadou Xabbaan mi nga xam ne moo yore liggéey boobu ñu ànd ak moom dem di sëriñ ba bañ cee jógee Cheikh Mouhamadou Bachir bi mu dénk lépp ànd koog ñun ba gis ngeen niñ ko dugalee ci biir màggal bañ cee jógee sëñ Habibou Mbacke Touba ci kanam moo njëkk a yëkkati lim bu mag def ko ci ndax lan booba lañ xam ni lu Serigne Touba nangu la ndax Touba ca kanam duñ yëkkati dara di ko dugal fenn ci lu dul loolu daa doon liggéey Serigne Touba booba lañ xam ni lépp dana jag moo tax sant nañ leen ñoom yëf yi Serigne Touba lañ yor bañ ca jógee suñu kilifa bopp yëkkati lu mag joxe ko ca noona lañ ko toppee waa kër ñaŋ muy suñu xalifa Serigne Mame Bara ñang mu nga xam ne moo fi toogal Serigne Modou Fadio ma ñang kenn ju tuuga ak njaboot gis ngeen ko ñoom ñëpp a ngi toog son porte parole mi ngi toog sëriñ Mame Mbaye Niang sëriñ Saliou Niang ak waa Kër Ba sëñ dëkk gis ngeen sëriñ Sidi Niang mi ngi ñëw noonu léegi nga xam ne ci signataires liggéey bii la bokk kon bu toppee di ko benn benn day xaw a jafe ndax dañu xam ne ñun ñëpp sëñ tuubaa rek lañ nekk ci ginnaawam li ñuy def daal mooy ñu ngi dalal gani sëriñ Touba yëpp ñu ngi dalal gani lislaam yëpp di leen wax ni jaay si Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul bii mooy première édition ànd nañ ci kuréel bi goo xam ne ñoom ñëpp ànd nañ taxawuñu muy sëriñ Fallou Seck muy sëriñ Moustapha Diakhaté muy sëriñ euh, Moustapha gay muy sëriñ Mame Dame Dieng mu yor communication bi muy muy Cheikh Ahmad Saloum Dieng muy muy ñoom ñëpp dañ ko ànd ak ñoom ci gën gaa rafet anam waaye it kuréel yi nga xam ni ñoo nekk ci biir dëkk bi di liggéey te nekk ci ginnaaw Cheikh Mouhamadou El Bachir muy Rawdu Rayahin muy waa Muxaddamatul Xidma muy mboolem kuréel yëpp gis bu tarix ak ñëpp ñëpp ànd nañu ñun ci liggéey bi ak mboolem fu taalibu Sëriñ Tuubaa nekk waaye nag du ñàkk ku lay liggéeyloo yéen da ngeen ñu doon liggéeyloo li xew ci biir liggéey bi danañ ci jukki ay benn ak ñaar tudd leen ndax bu ñu yëkkatee jaay si Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul fii lañ ko taxawaleen wax ko ñu laaj ñu fan ngeen di jëlee li ngeen ci def ñu ne leen Sëriñ Tuubaa mi ñu ko tuddee moo koy financé ndax moo waxoon ni xasainu rabbi li xayril ada dunia wa uxra wa barza te booba day téeméer junni nekk ko fi te ku ne xam na ne nga yi yàlla yi bu ñu la ko ubbilee xaalis a ci gën a néew moo tax amuñu woon benn problème ci ni danañ am luñ jox xale yi incha allahu taala te loola yàlla def na ko waa Mamadou Chir bi bu ñëwee danañ wax li nga xam ne moom lañ jox ci ñetti faron yi faron bu ne lañ ciy jox waaye daal man kàddu cant lay def di jot li Cheikh Mouhamadul Bachir sant nañ Serigne Touba bu waaye ñu ngi yeesalaat suñu njëbbal ci seen ginnaaw. yéen waa ko Serigne Touba faw ñu xam ni daa def lu kenn deful mooy lan dundam gépp da koo bàyyee suñu borom subhanahu wa taala loolu nag ñun ñu si tey bu ñii di ay taalibeem loolu rek ci lañ koy roy fa rek la ñuy jéem a nekk nekk ci seen ginnaaw ngir lan amatuñu lu ñuy xool wala lu ñuy wuti fenn kon concours bi nañ xam ne yëpp Serigne Touba la waa Serigne Touba ñu ngi toog bu ma amutoon seen digal ci wax wallahi lazim boo fi yëg ci kàddu ndax ñun amul lu ñuy bëgg ci suñu jëmm yi wala lu ñuy décider ndax bañ joxe suñu bopp lañ lañ lañ génn ci lépp waaye di sant bu baax ah, ñi nga xam ni dañ leen doon liggéeyal yéen ñoom ñu ñëw ci liggéey boobu am ca taxawaay yu rëy danañ ci cité ñaari nit ndax taalibe yëpp ànd nañ ko ñun waaye mënuñoo ñàkk tudd nag ñaari ñoo xam ne buñ doon xool ci wàllu en terme ci saar yi ci jaayante maanaam dañ caa raw ñëpp ba loolu obligation la ci ñun yéen ñi ñu doon liggéey ñu xamal ne leen ñaar ñii na ngeen xam ne Serigne Touba ñor na leen ñor gu mat sëkk muy kan Serigne Modou Kara Mbacké Noreyni ndax jaayanteeb saari alxuraan yi trois cent mille ñaar fukki saar ak juróom-ñett la ci jël mooy xoratu Touba te am yëg nañ ay yeneen ndimbal yu def ci ñoo xam ne dañuy tudd jaay seen kese kon foofu Serigne Touba alhamdulilah. sagal na Serigne tubaab waaye danañ ci dolli keneen koo xam ni fuñ mas a nekk ànd nañ koo moom ci jataay waaye mooy ñaareelu koo xam ni jël na ci fukki saar ak juróom muy Serigne Makhtar jenn kon Serigne Mouhamadul Bachir ñoo ñi nga xam ni liggéey bi ñuy defal Serigne Touba ci zaahir ci zaahir seeni seeni taalibe ñoo ci jiitoo jiitoogun waaye ñëpp fekk nañ leen ci sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp di di wax bu baax waa maire bu Touba. waa mairie bu Touba sa ci ñi def si Abdou Lahad Ka gis ngeen léegi sëñ Sidi li mu wax ñoom itam dugal nañ fi lu mat ñaari millions yoo xam ne dañ koy joxe ngir mairie bi waaye sëñ Abdou Lahad jël na ci ñaari saar ñoo topp wax ñi ndax ñi am na ñuy ñëw war a wax loolu waaye daal Cheikh Mouhamed El Khabaan Cheikh Mouhamed El Bachir sëriñ Abdou Samad sëriñ Jili ñi ngi leen di nuyu tey jël suñu buum bi ko def ci suñu baax di leen ko jëbbal ngeen joxal ñu ko Serigne Touba xam ne daal amuñu lu ñu bëgg ak lu ñu bañ ngërëmam ak mbégtam dong lañu lañ doon dàkk ci lii te seenub teewaay wan ñu alhamdulilah yaakaar nañ ko bu baax a baax sant nañ leen gërëm nañ leen ñëpp bëgg nañ ci yéen sëñ Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma ku ne xam na ne moo jëti commission màggal bi barki débu bi ñu def iftitaaxiya bi mook sëñ euh, Ahmad Badawi ñoo ñëw def ko wuutu leen ci yéen ñëpp te gis ngeen ko tey mu ngi ñëwaat nii ba li war a wax ci làkkum tubaab ngir lan adduna bépp xam ko moom lañ koy jox kon Mbàkke Balla ñu ngi lay bëgg ci yow di sant di la gërëm di wax ni daal yal nañu yàlla fekkaloo ay at waaye daal li mujj ci lu ñuy wax mooy ñi ngi yeesal suñu jëbal ci Serigne Touba di delloo delloowaat loolu di ko takk suñu suñu baat di ko jëbal waat kër Serigne Touba nekk ci seen ginnaaw wasalaamualeykum wa rahmatullah